waaw dan na nga def waaw maa ngi ci jàmm fan fii ci kër gi noo jaru ko dan jabar mën nga koo defal lu la neex mais du tee nga yar ko kii yaral ma ko dama jur jox la yaral ma ko bul ñëw dëgg la toog toogal bu la woowee bu ko jël te yow it bu ko woo maa la wax lool defal ma lool maa ngi nii ci ndey faatu laa jóge ma dem Dieng doon xool sama ñaw yi fu mu toll yow daal toogal maa la wax nga toog waaye boo ko nammee xool ko ci foto xool ko ci photo yar ko te sa loxo du ko laal jërëjëf asi ah, noo def waaye kase waay waaw enveloppe bi teel a ñëw ambulance bi mooy toog ba bës ba rek mais enveloppe bi moom na teel jërëjëf wa ah moom kay xam naa noon ngay def <laughs> bisous à distance <laughs> ay baax bi goro sama toogal sama doom sax la dootu sama goro sama doom la goro bu baaxee doom lay doon <laughs> yow fu ma tollu rek maa ngi lay ñaanal hmm. ndax bëggoo bëggoo ma gaaw a dee sama biir bi yaa ngi koy defar ki lay jox lekk bëggul nga dee te macha allah yaa ngi ci kontaan naa torop ci yow booba nag dama déggul ngay waxee conférence bi waxtaane woo ko benn yoon hmm. te ñii bu ma defee marraine yow lañ ko def ndax maas lañu xam xam naa ne dañ ñëw di la ko def rek ma nekk fi ñu cëral ma moo tax ma ne naa la laaj looy décider. ah ça dépend si yow rek. ah xanaa teen maa jox rek kay. Hmm. Ah, waaw ñu waaj ko. ndax ndamu maas la te ndamu maas mooy sa ndam. dëgg la. te ñii macha allah am nañ yaakaar buñ tas yaakaar bi. Hmm. Ah, loolu moom. du problème. Mm-hmm. yow yaay xool rek ñaata laa lay jox. ah yow sa yéene rek xam naa ne yéene nga ma lu ëpp sax moom. dëgg mais yow waxal rek ma xool. Mm-hmm. Mm, dëgg la. 500000 dina baax. 500000 ah tuutiwul de <laughs> tuutiwul de ay de boo ko defoon 1 million mooy gën waaw ah, ndax xam nga rek ñoom maas lañu yaakaar ba tax ñu ñëw fii ci kër gi fekk ma fi. te ku ne xam na ne masse yàq bu rëy la bokk. Mm-hmm. kon lu rëy lañu ñu war a def. Mm-hmm. bu ñu amoon un million mooy gën. un million. Mm-hmm. waaw baax na surtout que sa liggéey yëpp yokku na léegi yokk ko. waaw baax na. Ah, kontaan naa ci. amul problème yow loo bëgg rek. macha allah mën ngaa joxe lekk bu neex. bu set bu wóor. mais des fois da nga ciy boole xaalis. kon baax na. incha allah. toj nga fi. Ah. <laughs> toj nga fi te yoroo màttu de léegi daal bés ba boo solee sa lu weex ba pare den dal man xam nga conférencier yi ku ne dangay am say woykat te woykat yi booy dugg si ñu ŋaan di la xaar nga war leen a baat rek <laughs> kay luy metti rek na metti benn yoon te lu metti nga fajal ma ko fu ñu ŋaangee rek nga jox ma lu ma leen baat bokkul ak enveloppe bi ndax enveloppe bi dana teel. conférence bi daal na doon sa itte. incha allah. Mhm. jërëjëfati. Mhm. jarul nag yëgal maas dégg nga. Ah. sama digganteex yow la maas bokkul ak la may sama digganteex yow nga yaay doom <laughs> am yoo xam ne ñoo koy sa waañ ngi gën a yànj gën a melax. ak yow tamit Maggi arôme am na ingrédients yi nga sopp yépp cafka gi xeet gu neex gi ak couleur doore bii ci arôme Maggi ak soble piment vert ak laaj seeni togg gën a saf ak bi xeetu arôme bu riche Maggi arôme mooy seen àndandoo bu gën a wóor ci safal seeni ceeb ak soos Maggi arôme roy du nur ak piir ak Maggi arôme toggal soppi sa dundu yegsil li nga jàng xaw ma la réer. yegsil gànnaaw la man kii ma yegsil. yaay xaw yaay yaay nit laa waxee ma ne ndax dana yegsil. bi dan ki déedéet. lu lu la waroon de. mel maîtriser munoo woon a continuer li nga ko mere. boo ko waree tongu tongu ko. yaa ko jëkk tudd de. yaa ko jëkk tudd. taxawaalu rek di jonge ci mbedd bi te jonge woo ko sa foo demoon. ci boppam sax loolu taxawal. yow bu ma jugee jéeg bu nar a toogee sama place sa fiyee hmm. ah kon ki fi jóge dama ko lakk mu dem. Mm-hmm, du bii de. bële day daw na caba ba muy am tànk mais gis nga bii. <laughs> bii di ko fi dëj génnew ko fi. ah surtout man la yàlla fu ma ndax dafa am foo jàpp sa jëkkër. Eh. ma ko jàpp lay njuuñ nag àddunaa ngi lay njuuñ. maaleykum salaam. Eh, ça va bien wàcc na sañ sa de. waaleykum salaam Maas Guèye Guèye noo def Maas.

waaw la téléphone parce que man ba léegi suma appel amul benn yoon bu ma woowee. dal tey. waaw la dal. non dégg ma ko ah, tamit sant bi. waxu la woon ma yaay yaay xaw ma dama ne dama ñibbi de xam nga jigéen bi dafa rëy bëgg na ñibbi këram. moo xam moo fa jëlee woon boppam. man xam naa la. may sa mag ñi bëri nga bëgg isab da nga réeré bàyyi moo tonton ñu yóbbu la moo gën boo tonton kay man man dangaa maa gis ma nekk manquant pour ma potu ndox mu hmm. jee wala góor ni yaayam jiital muy léegi léegi mu ne da koy delloo kër jëkkëram ndax daa fayal ñu koy fay man du ma nit kuy fay looy de loolu sama kër jëkkëram laa jóge ñëw sama kër nag fayu ma waaw da ngay sëy waaw damay sëy mais su ma ko jël su ma ko jël rentré jarat c'est moi mais aw ma en dem bu yaakaar damay sabu de sa sabu bu yaay tuude ku ko jóg xaw ma sax sabu maa mag sabu mais bu ko ñëwee

conférence bi bu jeexee ba pare lu lay neex def leen mais fii c'est pas le moment ça va. ça va. ba tey maa ngi la set yaa ngi toog fii rek noppi lu xew mbaa jàmm la. sama problème mu kër rek tata li ma indi fii rek. problème kër. Fama man li may xelal sama doom biddéew rek laa lay xelal taaru jigéen mooy sëy te ngaa dem toog sa kër gële toog sëy sa sëy bi. ah non non dem tata mënu dem loolu la Mass doon waxante léegi sama yaay dinaan ko faama nan jël wooyi sama nijaay mu yóbbu ko mel ni man dama fay man du dama fay du dama fay dama am yu ma naqari ay principe samay principe bu bopp ma ñëw fii toog sama kër mag ba ba ba ba soulagé wu mais waruñu ma wax ay dañ lay dellu comme dama leen a xatal fii. wala moo la naqari lan nga jotee sa jëkkër. man du du problème du sax du sax du sax maag sama sama jëkkër sama wujju la sama wujju tata dafa jóge. jóge jóge sama wujju bi dafa jóge jóge dafa jóge te warul jóge. yow femme yow xanaa yow. su jógee côté bi yow nga jógee côté bële mujj man dama mën a jóge jóge moom dafa jóge ba sës jóge la jël sës réseaux sociaux yaa ngi fi faam ay bëri feem ak moom sa jëkkër yëpp a ngi fi xanaa bokkoo si groupe yooyu ngay xool nu ñuy def hmm. kon yëgoo loolu yow inscrit ma si groupe boobu ah. waaw xaw ma ko billaay xaw ma ko bokkuma benn groupe buy jàngal jóge yow jógeen rek ah jóge du jóge rek moom sa jëkkër mënuma koo moom xool naa fa taw bu ne def naa ko mënuma koo moom ba pare am na leneen loo xam ni loolu sax waxuma ko yaay waxuma ko mag waxuma ko kenn. loolu tata yow nit dalay xool rek am ci yow confiance homme de confiance nit dalay xool rek xaw ma lan la daal de xam ne nit bu am bàmmeelu biir. dëgg la lii su ma la ko waxee di nga ma ko denc. naa ko denc incha allah man yow yàlla. jeex na vidéo bu mu ko xam maas du sama yaay du kenn du ma ko wax kenn. loolu la mooy kii base base base bi ma jëlee sama kër au fond profondément jonge bi ci la bokk mais li ma profondé. Mhm. suma wujj bi moo ma menacé. menacé daf ma menacé à mort daf ma tiim nii ni ma njoolee noonu sut ma ëpp ma ni ma faama mën naa laa defal trace yu nit dul xam dama lay yàqate dama lay duur ba ba rey la fii te nit du ko xam ni ma boo ko waxee kenn di nga dee ni ma man damaa noppi woon rek mais bandi laa daf maa loolu loo tax ma daw ñëw. yow faama looloo tax nga daw ñëw toog. keroog bi may yow boobu damaa meroon foofu loolu laa jógee foofu rek ma këpp jo ko maa ngi jéggalu sax yow loolu ay seemu jigéen rek la ah yow kii daf la mënal dara xanaa du jigéen la ngay jigéen. jigéen la de mais man est-ce jigéen laa. ma ne hmm? jigéen nga comme moom laa la wax. Hmm. li na ci moom moo ne ci yow lan may problème bi. man moom ragaluma mi man. man ah? dafa mel ni laa man rek laa gën a am ko ko fit ndax bi mu defee noonu amut fit bi dem na. ma ne du la def dara dootu ñëwaat la def dara. lu la def tam dan dina ko porter plainte. wax du ko def dara. Hmm, dëkk bi am na yoon sax ah, dafa am yoon. lan mooy problème ma dara dafa maa suul rek ëpp ma mais mënalu ma dara. ma ne jugal nga dellu sa sëy bii man loolaa la ah, conseillé. ah ah ma woowaat gën dem ba xam dinaa ko dem moo gën tata. waa kay mënalu ma dara dafa maa suul donc ay ca leen. xam nga dafa mel ni moom ay parce que nangu ma jël dara su ma tey maa ngi doo jël sa téléphone nga woo ci dem nga xam parce que nan moo ma jël Massi. merci. tata léegi ñii dañ maa ngi woo kër dem jotuma ko. Fama insister rek xëy daan dafa jàpp. jàpp lu ko jàppoon suba ba tey mënul baax. biddéew biddéew eh, yow bu leen tey nga wax lu am yow ne woo ma dan dina ñëw dan dina ñëw ci ngoon gi waxuma lool ana dan xanaa déggoo li la tata wax wàccal ñu reer du ma reer tey moom du reer bu dan ñëwul du ma reer wala ma jot dan sa plat préféré la de billaay du ma reer biddéew hmm? bool bu tegoo wax nara bare du sotti nañ leen reer tey moom bu dan ñëwul du ma reer waaw gàmbaase na nekk lu ne na nekk si bax na nekk yoxos gàmbaase sax dafa fere biñ koy dugal ci cin li mu mais hm. da eh, koy faama kay reer yow tam. na reer sa jàmm. nga reer. waaye ca nañ lekk mu reer sa jàmm. Hmm. Hm. dafa am sax góob hmm. couleur bi. moytu ma de. faama reeral damay ñam waaye duma reer mm. mm-hmm. ah kon ñamal ñamal ñam nga yow teel ngaa tëj looy tëj yow bii loo fi def heure bi fii lay fanaan. fan ngay fanaan fii nii. waaw pour la. dégg nga ayoo ma di. kan ngay ay ayantol. ah xanaa faama. mais faama nekk fi nu ngeen di ay ayantol. waa léegi nag. béeb na xalal demal nga récupérer faama mu ñëwaat ci kër gi moo gën ci yow fii doo fanaan tànk faama. ñëw def naa lu ma man dem naa fa wax naa neexal naa wax naa lu ne pour mu dellusi yow xam nga fi ngay jaar femme ba mu ñëwaat. mais j'ai tout fait def naa lu ne. bébé insisté waatal insisté waatal yow tamit boo defee li dafay ñaaw ba pare man duma am la conscience tranquille ah yow nga bëgg fanaan ci néeg bii mais loolu mënul nekk xam nga ki ngay aay aayool mooy ki fi nekk. mais moom nekku fi te dem bi yow provoqué woo ko man provoqué wu ko moom moo provoqué dem bi dem demam. mais non luñ fiy nekk di ay ayantoo laa xamul. déedéet yaa ngi juum de. ma de yow mi yaa bëgg a juum. kilifa nga ci doit donner le bon exemple xam nga lii bu ma ko faama defoon man du ma neex kon du ma tooñ. doo dafay mel ni comme sàcc ay lay. Ah ah ah, ah ah ah bu fi wax sàcc ay de. lii du sàcc ay de déedéet sàcc ay mooy moom mu ne fi yaa ngi dégg yow nga nefi man ma nefi fi ba pare di ruur ca suuf di dem di sa di dem jël ay boo moomu loolooy sàcc ay. Hmm. mais lii du sàcc ay. va récupérer ta femme mu ñëwaat jël place ñu mun a nekkaat ci jàmm. ku nekk jël ayam. noonu nga ko gisee. ah noonu moo mën a am tamit bee fii mënoo fi fanaan. Hmm. Euh, taxawal bee bul demagul une seconde. Hmm. Euh, gis nga faama. Hmm. tant que dellu siwul ci kër gi. néeg bi doo fi fanaan. bon nii moom dangay fo wala la. non lii fo c'est des farces ou bien. naa la koy fo du yàkkamti nga dugg ci biir néeg bi. yàkkamti nga ko wala yàkkamti mais bien sûr. kon jeex na dama indi femme. waaw léegi ma jox la benn proposition. bàyyi ma ma fanaan fi tey. Mm. yaa ngi dégg. Mm. su ma fanaanee tey. Mm-hmm. bu subaa. Mm. nga couper les ponts. Ah. noonu nga bëgg. mënul nekk mon amour. va récupérer Fama. yow yaa dib saay saay dëgg.